maanaam bu ko mooy ba tax nga nga nga nga nga naagu ne yow kay moom yàqu nga yow dugg nga safara yow jeexal nga déedéet du noonu mën na am ne sax kii nii nga xam ne def na ko ni ko sharia waxee ba pare mën na am ne sax yaa ko ndax kooka su ci gisee boppam ci jëfam lam jëfoon lépp daanu na yow mii nga xam ne moyoon nga waaye yëg nga ne moy nga nga yëg ko tiit ragal sa borom tiitaange googu mën na am ne sax yow yaay jiitu kii nga xam ne moom defoon na ko ni ko suñ borom subhanahu wa bëggee kon ki nga xam ne defoon na ko niñ ko bëggee na sant boromam ca loola ndax du manoore kese bëri na ko mébét te manuñu ko bëri na ñu ko bëggee woon noonu te manuñu ko moom la yàlla dimbali kon na ko sant ca jëf ja te bum gis boppam ca jëf ja waaw bu mu ci gis boppam na seey ci boromam xeeb li mu def ba pare ñaan ko mu nangul ko kii nga xam ne moom moyoon na boromam e, ci ay tolof tolof benn nga xam ne dogoon na weeri koor wi te moo ko tey wala nga xam ne wóorutoon sax walla wóoroon na sax te dogut waaye am na yu ñàkk fayda ay mbóosóor ki ci waxantu ci jëfantu yoo xam ne def na ko ca kooku tooñ na boromam wala wàññi na yoolam ci koor gi kooku na xam ne eh, buntab tuub mu ngi ubbeeku pour nag suñ borom subhanahu wa taala ko mboolem loo xam ne lu paase la waaye kooku itam eh, tuubam googu il faut mu xam naka la koy tuubee su fekkee ne li nga li nga bàyyi woon lu mën a dellu si la tuub ga mooy nga indiaat ko su fekkee ne duut luñ mën a dellu su boobaa ni nga koy tuubee mooy nga rëccu ko jéggalu sa borom masalan nit ki nga xam ne dafa dogoon ci weeru koor bi te moo ko tey kooku luñ mën a indiwaat la la nga leboon ndem luñ mën a delloo si la danga koy indiwaat amma su fekkee ay waxantoog ay jëfantu yu mbóosóorantu yooyu loolu duhut luñ mën a seet delloo kooku dafay jéggalu ci boromam tuub ci boromam rëccu ko suñ borom subhanahu wa taala jéggal ko ko soxna yi da gis li muy tegtale mooy ndeke weeru koor du weer boo xam ne e, yàlla daf ci farataal jëf waaye bu jeexee rek ñu break dootuñ demati soo seetloo ci weeru koor bi e, da njullit yaa dafa feeñ ci mboolem doxini njulit ñi sa waxin soppi nga ko mm-hmm. sa doxin soppi nga ko sa colaay soppi nga ko mhm. li nga daan li nga daan jaamu ci yàlla soppi nga ko media yi sax soppeeku nañ mhm. télévision si télévision bi mhm. boog macha allahu taala programme diine macha allahu taala radio yi yëpp soppeeku nañ foo toll yaa ngi dégg ñu ngi wax ci eh, ci weeru koor wax ci diine eh, ku nekk mu ngi moytoo génne ci làmmeñam yi parce que dafa woor eh, waaye li ñu tiital mooy dafa mel ni eh, eh, jaamu yàlla gi jeex na waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ba mu jógee ca eh, xareeb jaasi xareeb jaasi bi mu mujj a def bi mu ñëwee dafa woo saxaaba yi ñu ñëw mu ne leen jógee nañ ci xeex bu ndaw bi xeex bu ndaw bi jeex na léegi ñu ngi dëgg dëgmal si xeex bu mag bi ñu ne ko lan mooy xeex bu mag bi mu ne mooy xeex ak sa bakken parce que boobu amul xam nga xeex ak jaasi am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem boot xeex ak sa bakkan moom ba nga dundee keroog ba ba nga ak sa xel ba keroog nga di fi jógee la mhm. te seytaane bari doole bari goo xam ne nga mun ko ba du la dugal ci dafa jafe loolu moo tax sang bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waxee woon ko noonu eh, nga gis eh, li ñu tiital moo di ne ak télévision boobu wala boog yooyu ci àddina bi nga xam ne kenn ku ci ne yëgoon nga ne yaa ngi ci weer wuñu fonk nga yokk say programme fonk diine ji nangamati nangam di seen eh, télévision yooya ak rajo yooya ba weeru kor way waaj a jeex ci fukk yu mujj yi gën a fonk ca lañ commencé làmmeñ wañ daan waxee di ñaax nit ñi ci lu baax làmmiñ woowa lañ jëlati di ko waxee pour xëcc nit ñi ci lu bon wane ne mbaax mu ngi jeex bés sàngam topp yàlla mu ngi jeex bés sàngam seen làmmiñ yi ngeen daan yi ngeen daan saytu ba du ngeen ci wax lu naqari yàlla palaas seen tànk yi ngeen daan saytu ba du ngeen dem fu jëf yi ngeen daan saytu ba du ngeen ci def lu naqari yàlla bés sàngam lay een ci lay jeex ngeen boy nag def lu leen neex ñoom ñëpp ñoo koy wax waaw ñu koy dajee palaas sàngam luñ fay defi dañuy ind suba ba ngoon di cétti cétti di wax lu yàlla bëggut di jaxasoo fu yàlla bëggut di lekk lu yàlla bëggut ba duñ duñ julli duñ def dara ba saayu saa leen neexee rek ñu wàññeeku mu mel ni ñooñu utal nañ jaamu yàlla waxtu woo xam ne fa lay jeex loolu nag daw na yaram nga seetlu soxna Ayda te loolu yemul rekk ci weeru koor yemul ci weeru koor de jëlal ajjuma ajjuma su jotee lu jullit ñàkk-ñàkk fayda lu mu fonka di fonka di diineem su ajjuma ji jotee koo dajeel rek da gëm ne kii am na maanaam njeexitalu lislaam ci moom ca colaay baag ca doxin ba soo mën a tey ajjuma la waaw tey ajjuma la waaye tey ajjuma la boobu itam nga ne danga ko def pour màggal ajjuma boobu itam jaamu yàlla gi dafa am fu yem ci suba gi bee ngay dem ca jàkka ja mu ngi yem ci col colaay bi nga sol colaay bi nga sol dafa dafa war a nekk colaay yu ajjuma waaye foofu rek kit la yem jëfin ya dara du soppeeku soo duggee si jàkka ji diir bi nga xam ne ci ngay dugg si jàkka ji di ci génn maximum ay fukki minute ak juróom soo moytuwut buy jeex rek fi ne nii even colaay ba génnee génnewuloo ko de waaye fi ne nii dangay delluwaat jaamu yàlla jeex na nga delluwaat ca la nga xam ne ca nga nekkoon te loolu soo ko nattee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam ji wax ne man saama ramadana fa atbaahu sittan min shawal fa ka annama saama dahra képp ku woor weeru koor toftal ca juróom benn fan ci weeru shawaal te mooy weeru korite mel na ni oor na at mi soxna yi da xam nga lu tax sang bi wax loolu jërëjëf xam nga jàngoon nga ci suñ jotaay yi paase mm-hmm. eh, benn qaayida qaayida mooy benn principle principlu fay jëf yooyu da nga ko war a mokkal soxna yi da ah. maanaam yàlla mm-hmm. dafa am ay principles ay qawaid yum yu yum tabaxee sharia fay jëf ju baax euh, qaida bi mooy wala ba principal bi mooy lan benn ci fukk loolu la yàllay fayee ah. waaw ku def benn bu baax fukk benn bu bon benn ba pare toog di la xaar saa yooyu rëccu rek mu faral la ko ku gën kii ku mel ni kii kenn melut ni moom suñ borom kenn ëpput ko yërmande ci jaamam yi gis nga damay wax ne sa sa liir bi nga xam ne mu ngi toll ci fi mu tooyee nga xam ne da nga ko yërëm ba doo ko doo bëgg dara laal ko sunu boroom moo la raw fépp ci ponkal ni gën a rëy ci ñun bari doole yàlla yërmande ji am jim am ci kooku ak ñëweti gim am ci kooku moo ëpp kii nii yërmande gim am ca ca liiram boobule wallaay eh, nga seet loolu ni mu ni mu ni mu doye waar eh, yonent bi saa salaam ne ku woor weeri koor toftal ca juróom benn fan mel na ni oor na at mi bañ ko seetee ci xaaida te mooy principe fay jëf benn ci fukk hmm. fanweeri fan fan bu ne fukki fukk fan bu ne fukk la ah. soo multiplier ten ci tàtti lum laa jox three hundred mm-hmm. three hundred days mm-hmm. loolu mooy ñaata fan mu ñaata weer ten months three hundred days mooy ten months mm-hmm. kon weeri koor saa yoo ko ooree oor nga ten months ne nag soo ci toftalee juróom fan oor nga at mi six muy sixty ñaari weer a ngoog kon képp ku woor weeri koor toftal ci juróom benni fan ci weeru shawaal or na at mi foofu nag soxna Ayda léegoo léeg nga gis fa ay tolof tolof yoo xam ne leerul ñu bare mooy li ñuy tuddee wenn saan nga rey ci ñaari picc loolu nag suñ mbokki